siyaar naa leen yéen ñiy wéy di ñu topp ci scène bii di Banlieue Production scène bi nga xamante ne bi événement bu mag événement bu xew moom mooy dem jëli ko dugg ci ruq yi ak ruq ruqaat yi andil leen la xew tey nag ku ñu xool xam ne ñu ngi fii ci centre culturel Douta Seck kan moo xewle kiñ naan Akim Akim nag moom mooy Akim l'ambassadeur guinéen boobu nga ne bi bi mu ñëwee Sénégal ci TikTok bi yàggut waaye def na fi ay preuve am parce que tey bokk na ci Sénégalais bokk na bokk ci tiktokeur yi nga xam ne ñoom ñoo ëpp ay abonné fii ci Sénégal tey nag Akim moo xewle Akim nag bu xewlee le fa Ibra Seck ba Guinée topp leen ma ñu ànd ak Akim di daw di yëg ah, tur bi naka la. Ba. Yaya Ba tey ñu fekk la fii ci Douta ci événement boo xam ne Akim l'ambassadeur moo ko woote yow su lan nga représenté ci Akim wala boog lan nga représenté fii ci peuple guinéen bi lan nga may wax. Euh, maanaam. ñun dañuy soutenir même pas guinéen wala sénégalais ñun bépp jeune bu nga xamante ne danga am da am pour avancer daal pour liggéey am jom ñun dañ lay accompagner quoi dañ lay soutenir que ça soit sénégalais mbaa guinéen quoi comprendre nga donc loolu la kon sponsor nga ci affaire bi daal. naka. man sponsor nga ci affaire bi. non du ma du ma sponsorisé wu ma dara damay damay appuyer booy bi di appuyer yeneen booy ni may appuyer leen booy di leen encouragé ci maanaam ci li ñuy def quoi comprendre nga voilà su ma gisee euh, jeune comme man bu am jom tu vois dama lay accompagner voilà li ngay dama lay soutenir ci li ngay def loolu moo tax ma bàyyi suma lépp ma ñëw fii nii quoi. voilà quoi jeune bu mel ne Hakim nga xam ne révélation la tey ci TikTok bi mu génnee xam ne yàggul waaye dem na tey ba atteindre niveau abonné wu nga xam ne Sénégal tey mun nañ ne moom moo fi ëpp abonné tey ku mel noonu lan lay def yow. loolu dama ci kontaan di ci am mbégte bu baax comme euh, dama koy comparer ak comme ñoom xabi euh, laam affaire yooyu noonu comprendre nga parce que tey jii nii euh, jeunes africains yi ñoom tam war nañ mun a def yoo xamante ne adduna bépp dañuy gis quoi comprendre nga donc loolu dama ko ci encouragé daal waaw di encourage yeneen booy yi tam yi nekk ci game bi tamit di def lu mel noonu comprendre nga voilà quoi. gis la nga ñëw def sa baax sa sañse boo xamante ne bii tey li nga def xeeboo ko. non xeebu ma ko dama ñëw jàppale Hakim 224 sama mbokk la en plus bon sama xarit la Keuz tamit moo tax ma ñëw di ko assister euh, dama bokk tamit ñii di def prestation tamit après dinaa feeñ di sol ay drapeau yooyu noonu. yow lan ngay def. man Miss bi damay représenter Sénégal man maay représenter drapeau Sénégal. yow yaay Missu Sénégal. waaw. est-ce que xam nga gagné ba pare. amul problème. tey tey jeune bu mel ne Hakim doon Guinée waaye xam nga Sénégal ak Guinée daanaka amul frontière tey mu ñëw. Sénégal imposé boppam ba représenté fi boppam ba def fi tey lu toll nii tey euh, jeune boobu tey boo ko doon wax lan nga koy wax. bon dama koy naan bu mu découragé parfois day am ñoo xamante ne dañ koy découragé lool euh, di ko wàññi daal naan ma Guinée Guinée yoon la warul jëf lii non non damay naan Guinée ak Sénégal ñëpp a bokk amul exception donc carrière bu mu jël na ci topp daal macha allah na ci topp bu mu découragé waaw xam naa ñun dañ koy soutenir incha allah waaw. ñun dañu naan ñun guinéen lañ ci sénégalais ñëpp a bokk ndax c'est l'Afrique qui gagne xam nga boo xoolee guinéen ak sénégalais daanaka amul njëriñ xam nga li am njëriñ mooy nit ki parce que boo xoolee tey gis nañ fi ñu mel ne ay ñoom mag di doon ay sénégalais ay ñoom Cheikhou Tamboy ñoom Maya Kama ñoom ñëpp ngi fi tey di ko soutenir di ko jàppale waaw loolu tamit dëgg la mais xam rek comme li ma la wax rek c'est l'Afrique qui gagne amul exceptionnel ma naan comme que guinéen la du ma def lii euh, la ñu donc dama koy critiquer di ko naan guinéen la nañu xam ne guinéen bi mooy tax Sénégal di évoluer moo leen di jàppale tamit yenn di leen defal publicité mënoon na nekk Guinée ñu tey mu ngi Sénégal di jàppale di wane yenn pays yenn capitale yi na dëkk yoo xam ne kenn xamu leen mais mu ngi góorgóorlu di def joobam yoo dama koy naan bu mu ko kenn xeeb daal mais comme li nga joué ak day daw rek non man duma dawal. siyaar naa la. Ah, maa ngi fay bu baax. yow moom xamee naa la. waaw xamee naa la. yow yaay tiktokeuse bu mag boobu nekk ci tiktok. waaw man la Ndioufa. Ndioufa tey ñu gis la nga yow tamit ngay tiktok nga jógee ba par exemple restaurant wala xaw ma grand mirine ñëw fii tey di jàppale koo xamante ne bii ñëpp xam nañ ko muy Hakim waaye nga daje fi ak tiktokeur yu bari ay ñoom si booy ñoom mag di tey lan nga yëg. ah te may contentement bu baax may sans faire plaisir daal kontaan naa bu baax mu ñëw teew fi ndax ñu bëri xamanteew ñu ay tiktokers lañ mais xamanteew ñu day tax bu ñu dajee ci milieu yi mel nii day tax ñu xamante ah, waaw dañoo ñëw soutenir sunu doom day bi Hakim 224 dañoo ñëw jàppale ko Hakim moom ku baax la ku war a la dañ ko war a soutenir mais ma gis la ba léegi yaa ngi fecc dafa mel da nga kontaan. waaw dañoo kontaan trop trop sax. waaw macha allah. tey Hakim représenté Guinée yu bari yi nga xam ne ñoom ñoo nekk Sénégal ba pare di def ci TikTok bi lu doy waar tey boo leen gisee Hakim lan ngeen di yëg ci Guinée. waaw ah, dañoo kontaan si moom di ko encouragé waaw. mais lan ngay wax ñi nga xam ne dañuy wax tout le temps naan Hakim du sénégalais du sénégalais loolu lan nga leen di wax ñooñu. xoolal Sénégal ak Guinée yëpp benn la ay doomu ndey lañu. waaw waaw man loolu laa war a wax. waaw mais seen feetu indépendance la tamit Guinée moo tax ngeen di fecc ni waaw moo tax dañoo kontaan waaw. candidature à type 224. foki Fati Kohambo Fati Kohambo Atib Applaudissez pour Atib Ande ko Dakar kona na dokata disse ñu ngi doon ziar kilifa gi di la nuyu voilà donc tey lan moo leen fi indi tey waaw bisu Hakime moo ñu fi indi macha allah daa nekk suñu doomu nday moo tax du woote ñun ñëpp lañu wuy si voilà voilà yow yaay kan si TikTok bi TikToker nga wala eh, créateur de contenu wala lan exactement. man TikToker la lepp la. voilà lan ngay gëna def si TikTok bi. man la jaay ko ci borom cax la. borom cax la. lol yéme na rek day war voilà donc tay lan lan nga gisé bis bi tay ak akim la fait que mu bolé la ci ay invité. waaw ak ñi contane baaxa baax parce que mom yegg nañu ñun ñëpp macha allah voilà bis mom mi ni neexna na trop. waaw commencé gul mais neexna na xol set na ci mom diko ñaanal jàmm liggéeyam avancé bu baaxa baaxa baax bis bi mom tay ni la mu doon démé rek ndax Hakim suñu gaañ la suñu xarit la te nit moom ku la yëg rek moo la sonal daf ñoo yëg moo tax ñu ñëwal ko ñu ñëw teewal ko moom waaw loolu rek la waaw mais lan ngeen waajal si bi

xewle ngeen euh, teewal ko donc ban yëg-yëg nga am si invitation bu la Hakim euh, cëralee. waaw maa leen nuyu yéen waa Banlieue Production ak waa Bibo comme digital waaw di nuyu mbokk sama mbokk artiste toog fii nii ñëw bi dañ koy parce que initiative lu nice la quoi ñëw Sénégal nekk fi def ay vidéo ànd ak ñun bokk nekk benn organiser benn affaire woo la téléphone ne nga ñëw woo say morom artiste loolu ku la yëgul mënu ko si yow donc ñëw teew comme ñëpp ah waaw jàppale ko ci bés bi parce que Hakim suñu Hakim la ñun ñëpp voilà donc tamit dégg naa tamit am na loo xam ne yaa ngi koy waajal pour bisu tey bi mu nar doon benn affaire bu garaaw man nag lu may laajte est ce que doo leen nekk fii nii di daw ah génn fii nii nar dem ba ay jëm naajoo ñëw fekk événement bi jeex. waaw loolu surprise lay doon li ñu nar a indi moom. Ah. surprise lay doon waaw en nañ bëri tax taxaw am condition play. Ah. dafa leen daw daw moom boo am am si. Ah. bi naaj na donc affaire yi moom lii la. boo nekk ci benn affaire di ci yëngatu daf ciy baax des fois nga woo say nit fekk si la nga natt sa bopp présenter leen benn spectacle donc parce que affaire yemul kese ci internet quoi donc lii moom c'est très normal te lu nice la quoi. voilà donc lu mel ni tamit comme euh, Guinée euh, di fête indépendance donc ñu gis fi ay sénégalais ñëw teewee bis bi donc lan moo lan moo waral loolu c'est maanaam que euh, est-ce que lii nii day wane que Sénégal ak Guinée benn la wala exactement daal lan moo. teewaay bi etu au delà de tamit euh, tey mooy indépendance day bu Guinée waaye loolu nice na xam nga fii moom ñun ñëpp benn lañ Sénégal ak Guinée lépp benn la quoi comprendre nga bon ñun am nañ ay copains guinéens yu bëri am nañ ay copains yeneen yeneen dëkk sax comprendre nga donc Sénégal mooy dëkk boo xamante ni dëkku jàmm la dëkku teraanga la ku fi ñëw rek gars dañ lay dalal dalal la jàmm comprendre nga donc affaire yi ñun ñëpp benn lañ pour man warul am sax kii mooy lii kii mooy lële dañu war a boole lépp rek nekk benn la preuve boo fekkee ci kër ñëpp toog doo xàmmee kii mooy kii wala kii mooy kële comprendre nga donc dëkkuwaay bi fii dafa nice quoi donc moom macha allah waa lépp jàmm. maa ngi di nuyu yéen ñëpp di nuyu sama mbokk yi fi nekk ñu fi dajale parce que su ma leen gisee damay kontaan damay firi waaw. voilà donc tey nga ak yi xewle invité la nga gisee ko nan tey dégg naa tamit yi ngeen di waajal benn euh, benn spectacle bu doy waar. waaw li ñuy waajal moom surprise lay doon. Ah. waaw mais Hakim suñu mbokk la. Ah. waaw ñoo bokk lépp kon bu xewlee woon dañ ko war a ñëwal. mais surprise boobu noonu baa du am ay daw rek. ci kanam yéen di xam lépp. ah kon donc ba ci kanam. waaw bo euh, Akim dafa nekk suñu bro Akim 224. tu wa mu nekk benn bro bu cool euh, am événement am daal du ñu si invité am mënuñu def dara dul ñëw euh, soutenir ko parce que suñu mbokku tiktokeur la suñu mbokku influenceur la donc et on est fier de lui quoi vraiment li muy def daf ñuy daaji daf ñuy reetaan donc c'est très normal bu am événement am soxla ñu si daal ñu gis quoi voilà. donc tamit tey doon indépendance day boo xam Guinée mooy feete ak euh, indépendance. Mhm. donc loolu noonu ba nga yëg tamit nga si am la fait nga ñëw

invité quoi su ma ñu seetaan si reetaan si suba mooy loolu. ah kii euh, Sénégal laay wax nekkatul Guinée boo xamante ni dafa bàyyi di def vidéo xam nga mu nekk fierté Sénégal nekk fierté Afrique kon bu xewlee dañuy bàyyi lépp loo xamante ni jàpp nañ ko ñëw moom tamit mu nekk koo xamante ni ku baax la bi mu xewlee xam nga jël téléphone am woo ma ñëw suñu kër ne ne dafa bëgg ma ñëw xam nga loolu tamit xam ne dañ koy dañ koy euh, dañ ko ci amul lenn ñuy def ñuy ñëw ba fii pour soutenir ko loolu rek loolu rek la ba ba ñun ñëpp ay frère lañ. kenn mënuñoo xaajale. donc ñun biñ ko euh, waxtaan nañ ci fan yu néew ñu ne euh, moom moom a njëkk wax ne Fallou mu ngi jàpp ci projet bi Fallou ban OFT moo nekk ci moo fii que concurrence bi nu mu baree euh, ba Fallou tey am sawarte di jàppale ku mel ne ay Hakim ak yeneen ak yeneen. non waaw yow bàyyi waay <laughs> yow Hakim di suñu frère. suñu la yow concurrence bi du ñun quoi mais concurrence bi feneen si si maanaam kon laa bi du ñun du ñun ñun nekkul si ñun si ñun mais concurrence bi keneen la est-ce que yaa ngi comprendre bi ma lay waxee nekkul ñun ñooy concurrence xam nga ñun ñëpp ay frère lañ xam nga moo ne loolu noonu donc euh, avant ñuy génn ci wax ji euh, dañuy am foog ne faaw ñu ko laal ko Fallou nekk di lëmbe àdduna bi la mooy secret bi. mais fépp maa ko lëmbe ka même. waaw mais man la xale bi xale bi dégg sama tur bi rek. dama garaaw Fallou Fallou ça répond tout quand même. dafa diis waaw sama tur bi moo tax may lëmbe fépp. waaw Fallou ñu gis ci classe Ngaaka Blindé bi ak ak lu prix mais au vrai dire Fallou daf ci gën a bénéficier ci gën a fës lan moo la gën a motiver ak lan moo rêvé euh, ba nga dugg ci coow dafa tombé rek man sa sa saa bu dara xewee dama si ñëw ak fon dama si ñëw ak comédie man bu bu ma ñëwee fekk dara euh, loow su ma ñëwee dama si ñëw indi sama façon euh, comédie pour indi reetaan pour bañ kenn mer loolu la rek. mais yaa ngi def show nii. Mbaye tooñ. borom bés bi moo ko jar moo tax. ah lan nga si ak lan moo la fi indi tey lu waral bis bi sa teewaay. waaw comme ñun ay artistes lañ dañuy ñëw pour jàppale ko rek comme ñun suñu xarit la kay daf ñoo yem te ñu ñëw pour teewal ko jàppale ko. artiste artiste ban anam maanaam waykat nga wala. waaw artiste chanteuse Nabou Char. Nabou Nabou tur bi nu mu neexee est-ce que baat bi noonu la neexee. ah bien sûr est-ce bi raw ko. may ñu dara nga xool caméra <laughs> ba après. mais wayal jàkkaarloo caméra yi waa ban waa banlieue production la rek. dinañ ko gis léegi dinañ ko gis fii léegi ah, waaw. tey lan moo ba am mbégte ak contentement ci ci ci invitation bi. Mhm. parce que bëgg yëg moo koy fay. Mhm. bu ñu yëgutoon tey jii nii duñu woo ñu ñëw bàyyi suñu lépp teewal ko. donc euh, dañ koy ñaanal. dogal li mu nii suñu borom jàppale ko ci te mu bàyyi ko ak ay nitam vraiment nit ku baax la waaw moo tax ñu teew fi tey. naa bu ña solo bi yow. warta tax nga sàggane julli waaw ndax suba tisbaar takkusaan timis géey loolu bariwul mbokk mi waaw xanaa xalaatu leen ne suuf la ñuy mujjee te yàlla dina niir ne safara dina fees waaw waaw. mais ñee jóg dóor waar def si sa bopp gën a takk sa fit di ñafel sa bopp bul xaar jëkkër di la defal lépp war ngaa mën a amal sa bopp lépp eh waaw ak moo ñu invité ñu war a ñëw parce que ñu ko gis moom sën la mu ngi def lu nice isaa yi dégg di def lu dóob isaa yi dégg wax na ci bës bi ñu teewal ko pour jëmmal ko yaam gën a xam mooy loolu quoi lu seen taxawaay bu baax nag yéen gis nañ ñi ñëwee di jàppale seen yi di tasaare programme yeeg affaire yooyu nag ñu ngi leen kontaane bu war daal waaw freestyle rek mën naa leen a may loolu yee jàmm ji dafa tiis jàmm bi sakku ko di ko deful tiis eh sacrifice bi tiis eh jàmm bi defal rakk bala ngaay tuub wax ba fi kenn mën na laaj jiital kala bu ndaw ritu man biti man ma ngi dara man nenan ma ci man la mama nena muñal dina baax fa ma yeex do comme ça dama wara daw do comme face nena ma tepp tepp gën yu reen dank dank ni la mënan dem fa ma yegg gaay yegg jëm di rek fa ma yegg fi gaay yegg de fofu dara du dul toga sa galé te gëc de cool sem papa tew na fils comme fokk nga degluma ma dak rap sa papa papa est ce que sib nga ma okay, li ben freestyle mo na la wor rek boy bi mo ñu planer tek sa mc jëc plateau ciep chop la laaju ci dees comme fils xam nga la man la MC Bobby 24 dama lay chop laaju ci dees nee jara men tampata hay si badma ngou kay kata mi wonde mi wati ko kamberon kata hay mi fuɗɗake mi numaɓe monika ke san kisan gazaman na ke san mi jetti microphone dem ngi normal ke san daru bad manjiɗimɓe ke san hay mi fuɗɗake mi numaɓe ke san criminal dandi ko mi criminal dandi hore microphone ko mi criminal badman mi jeji mata no dano yo tribunal ɗa handiploje gaja ma no feƴƴi tribunal mara Yaman, sall Yeah est ce que vous pouvez nous expliquer ce que tu étais en train de dire yeah. tout petit peu on peut le résumer par rapport ouais, à j'ai expliqué à ma mère mm-hmm. ma mère m'a dit que je n'ai jamais je n'ai jamais souffrir, mm-hmm. je n'ai jamais souffrir. alors que lorsque j'ai commencé la musique euh, il y a des gens qui voulaient m'empêcher donc euh, ils ne peuvent pas c'est ça que je dis. Ah, et euh, bonne continuation. Ok, merci. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui par rapport à l'événement de Hakim, événement de la Guinée Oui, assalamu alaikum. Ko min Mariam, mi do Guinée-Bissau. Hande meɗen welti fi honnum, hande ko indépendance Guinée-Conakry. Hande noon ma le foot hande yo aru men fija. Meɗen ari ɗo ka Hakim ɓe meɗen ɗo fijude faalaɗo yo yo artawa men ɗo meɗen won ɗo kul. Ala ko mankiri men ɗo. Hande kala anduɗo no jogii

guinée conakry sénégalais faut fof c'est la même chose faut wala ko manque par ce que ko hunde wotere meɗen sénégalais non pour le no non pullo futano ɗo nonema leñol mais ɗo min wawata innude ko minen fulɓe ɓen tuma par ce que hande ɓe eh, meɗen waɗi valorise drapeau amen on hande hande ɓay hande ko l' indépendance de guinée conakry madame euh, vous s'appelez comment s'il vous plaît Zénab Zénab là vous êtes très belle hein, machallah ah ouais donc Zénab aujourd'hui euh, Qu'est-ce que vous amenez ici aujourd'hui Pour les fêtes, les, pour l'indépendance de Guinée. C'est pour cela moi je suis ici. C'est très joli. c'est très joli. Donc on sait que la Guinée c'est un grand pays. C'est un grand pays avec beaucoup de liberté. Donc aujourd'hui, on sait la jeunesse guinéenne s'est éveillée. Il y a beaucoup de choses aussi qui se passent aujourd'hui en Guinée. Donc vous, les Guinéens qui vivez au Sénégal, comment vous vivez ça aujourd'hui Quoi vous les Guinéens qui vivez au Sénégal, comment vous vivez aujourd'hui entre euh, la propriété et l'Afrique aujourd'hui C'est très joli. Hmm ici, c'est très joli avec les Guinéens là. Mm-hmm. C'est très bon ici. Mm-hmm. C'est ça que je venais ici pour fêter les fêtes C'est pour cela. non événement trop trop trop parce que comment dire sénégalais soutiennent à Guinée, mm-hmm. donc donc trop trop trop trop trop Sénégal. te nit am national Gambie lan moo la inspiré ba nga def loolu. yaa l'hymne national Sénégal bi bu wone gars yi ak Sénégal lépp benn la quoi te c'est la famille loolu moo tama ma def mais c'est l'Afrique yi gars yi soo leen gisee indiwuma tamit ay yeneen l'hymne national yi mooy loolu parce que tam bi moo waxaat quoi mais c'est l'Afrique yi gars yi quoi c'est la famille loolu moo tax ma indi genre boobu. mais Hakim ci TikTok bi wala inspiration daw bi dafa jekki jékki rek mu ñëw ci moom. waaw daw bi moom création boobu di nga ko programme bu yàgg quoi mm-hmm. mais li may wax. am na lu ñu préparé à part à part <laughs> am na lu ñu préparé a tàng loolu quoi incha allah incha allah incha allah. mais tey looy wax nga nekk ci réew mu mel ne Sénégal bi nga ñëwee ci TikTok bi yàggul mais Hakim tey dem na ba presque deux millions six cent ci loo xam ne yàggul. liggéey la dama koo job mais Sénégal tey leen xam xamee ko parce que damaa job bu bari quoi parce que job mooy fay quoi soo job bi moom day gën fay quoi mooy loolu. <laughs> mais liggéey bi meet na fii Sénégal. non liggéey bi dara yombul quoi même si nga dem États-Unis yombul soo toogee sa gàlle nga nalaw quoi doo si am dara quoi fu dee nga jug nga liggéey mooy loolu. mais tey nga gis euh, tiktokeur yu Sénégal yëpp ñoom mag Magdi ñoom Cheikhou Tamboy ñoom Maya Camara. ñoom Fallou fait vidéo nga xam ne ku jum ñoom ñëpp tey ñu ñëw soutenir la sa événement bi. la kontaan naa trop trop trop seen boobu quoi ah ba eh, wane ni comment dire ak Sénégal c'est la famille quoi loolu moo tax ñu soutenir ma kontaan naa trop trop ak ñi ñi ñëw ak ñi ñëwgul lépp benn la quoi xam naa ne am na ñoo xamante ne bëgg nañ ñëw mais eh, kii bi. tambi mo amul ko amoy lo ne content na trop trop content na si fallu content na si gars yi lépp quoi sa morom tiktok yi lépp quoi mooy loolu. mais akim yow de nga wolof. nga <laughs> demay takale rek. damay takkale. ma <laughs> dal Touba bi da nga daw Touba ba Dakar tamit aussi. waaw boobu comment dire waaw dama ko defone mais liguey bu metti la won uh-huh. mais parce que ko ma dire damay bëggal bay Fall mo mooy loolu. mais inshallah nu gaaw nu xaar gambo bi tamit. <laughs> kon ñing lay xaar nga dawat gambo Tiwaawoon ba Dakar. inshallah inshallah dina def lu raw loolu quoi parce que gis sama fans yi rek quoi ñu bëggee. macha waaw Hakim looy wax tey banlieue production. banlieue production meilleur de sa génération sama gars yi daw leen ngeen abonné si banlieue production bu baax leen man ma man maa jëkk abonné incha allah ñoom ñooy meilleur bi. banlieue production avec Hakim. ak avec Hakim man maay fa donc ngeen vérifier commandé si abonnement bi man maay fa. te xanaa xamoo banlieue production dañuy daw comme ni Hakim di dawee. <laughs> xam nga dinañ si essayer incha allah sama gars xaar leen def fii boobu banlieue production <laughs> def <laughs>